سيدنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن صاحب الختمية والكتمية مولانا أبي العباس سيد أحمد التجاني ورضي الله عن وارث سره وصاحب فائدته العظمى مولانا الشيخ الإسلام الحاج إبراهيم الحاج عبد الله نس الحمد لله القائل إنما المؤمنون إخوة fa aslixu bayna axaway wa salaatu wasalaamu ala rasulillah xaatimi ambiyaay wa imaam mursalin Serigne Cheikh Sarr muqaddama baay di soppee mbokk ci xalifa ba Mawlaay Alxaaj Abdoulaye Ibrahim Niass di wóolare itam Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahim mi nga xam ne moo ñu boole famille yëpp ñu ngi lay nuyu nuyu bu kawe bu jógee ko ci pays Cheikhul Islam Hadj Ibrahim jógee ko ci xalifa ba Mawlaaya Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass mi nga xam ne fan yi rek la jógee ci tournée bu réeréeré ci Mauritanie président de la république recevoir ko mbooleem tekki dara ci Mauritanie rek dem nga seeti ko te loolu liggéey Mawlana Cheikh Ibrahim la waaye nag dafa laajoon ku jóg te moom it jóg na ànd ak Cheikh Mabdoul yi wala ñaari maax yëpp ak boole kàngami pay bi ñu jot li nuyoo ñu nuyu ñi nga xam ne ñoo organisé jotaay bii sëñ Tamsir ak sa équipe bi yëpp ñu ngi leen di nuyu sunu jigéen ñi mu àndal yéen ñëpp ñu di leen di ndokkeel. Euh, ndax jotaay bu nii képp ku ko organisé da ci am yoon bu rëy di tax seen bi moo am doole. parce que mooy waxtaanee mag ñu baax ñi. xam naa bu ñu wàññiwoon écho bi tuuti dana baax mu nekk benn son. mooy waxtaanee Cheikh Ibrahim Niass. ay relation ak këri diine yi relation ak kilifa diine yi te dañu wax ne te loolu mooy wax sufiyanke yi te mooy dëgg nit ñu baax ñi fu ñu leen di waxtaanee rek ay yërmaande dana dotteeku ñoo wàcc ci place boobu wàcc ci képp koo xam ne ma nga fa kon ñi nga xam ne ñoo nekk ci place bi tey ak ñiy fekkee jotaay bi bépp xéewal boo xam ne wàcc na seen kaw rek yéen am na ca yool yéen ñi nga xam ne yéen a organisé kon yool boobu yàlla ñu ko yàlla boole ñëpp macha allah peut-être euh, waxtaan wi maanaam li koy tax am li ko gën a amal solo bokk na ki ñuy waxtaanee ay relation ak moom ci boppam ci cadre bi nga xam ne ci la teg ay relation ndax Cheikh Ibrahim Niass moom dafa am benn cadre boo xam ne ci la yëngatu te du ko génn mukk muy cadre l'islam boo xam ne sunna suñu alquran ak sunna ñoo ko rëdd ndax dafa wax ne ida saara xayru nnaasi surtu waraahu wa in xalla yowman fa nasiru baid si nabi sallallahu alayhi wa sallam di dox bu seetee rek ma seet bu taxawee ma taxaw mu teg ci itam ne ñaari sëriñ rek la am ci zaahir moom set mooy alquran ak sunna li yàlla wax li ñu ci wax mboolem relation Cheikh Ibrahim ak ay ak ay actam ak action lépp lu muy def rek ci la ko teg moo ne sëriñam ci baati nag mooy Cheikh Ahmed Tidiane moom du tàggoo ak moom kon ci cadre alquran ak sunna relation yi Ibrahim bu ci mën a doon ci biir cadre boobu la koy teg waaye ñu seet principe bu kowe boo xam ne Cheikh Ibrahim daf koo dund mooy li nga xam ne mooy dafa wax ne bët bi may xool doomu aadama kenn du ko ko xool di ko bañ moom waxut jullit waxut tijaan waxut murit waxut ba Baay Faal waxut laayeen waxut kenn doomu aadama la wax mu ëmb mu ne bët bi may xool doomu aadama kenn du ko ko xool di ko bañ parce que coobareeg yàlla boo xam ne yàllaa ko yàlla la neex mu bindee ko nii ak nii ko gisee li ngay man mooy mu neex la rek nga xam ne li neex yàlla neex na la nga war caa sant yàlla yow soo amee beneen bët boo koy xool it yaay sonal sa bopp kon kooku mooy Cheikh Ibrahim léegi nga xool bu fekkee ne relation yi Cheikh Ibrahim ci cadre bi nga xam ne moom lay dox muy alquran ak sunna ak xool doomu aadama bëtëb yàllaa ko bind ak bu mën a doon bu fekkee sax du noonu Cheikh Ibrahim lan baa koo xam ne gëmoo yàlla ñaar ñëpp danaa ci indi misaal par exemple te yii Cheikh Ibrahim bët boobu moo tax mu jëflante koo xam ne dañ ne ko kii bëggut la di def ay ak yoo xam ne ku bëgg nit doo ko def waaye terawut Cheikh Ibrahim bu jëflante moom mi ngi jëflante kii jaamab yàlla la am na euh, benn kilifa bu mag autorité la nekkoon kaw la bi fayda bi feeñee bàyyi feeñ fiiraange am ba ci chef de canton yi ak yenn sëriñ mu bind ay leetar mu dem ci borom Ndar di ko kappase ak moom te yooyu yëpp dara antuwu ca kooku daan dem ba nga xam ne daan na jël sax li nga xam ne mooy saxaar gu bàyyi dugg mu ñëw lu jël sées ba ca kanam réservé ko du xam cigarette diggante Kaolack ak Dakar te oto dem na ba jël li nga xam ne mooy Medina Baye génnee ko ci commune Kaolack xale yi juddoo duñ ko def doomi Baye duñ ko def mu jël ne képp ku juddooti ci kër Baye di njabootam ak ku dëkk Medina dootoo amee kayit juddu Kaolack da ngay def dugg saret mbaa nga dox xam bi dina jëm ba ak loolu def nañ ko ko mais nee naa la def ne bët bi ñu xool doomu aadama kaay leen xool kooku def lu ak borom bët bu nga xam ne mooy xoolukaay yàlla ci kaw suuf keroog bi kooku amee problème boo xam ne kenn mënu koo faj ko mooy Cheikh Ibrahim boobu mu ngi paralysé ñu si war a jël këram génnee mboolem njabootam ci biti amul kenn ku ko mën a faj keroog ku mooy ki nga xam ne ñoom la génne woon njabootam kaw lax ñuy dem ba fa xam ne fii mooy ba saas safooram di mbokkam ne ko loolu kenn rek ko mën a faj tey ci kaw la mu ne kan mu ko Alxaaj Ibrahima Ñas mu sëgg ne ko kooku ñëw mën waa janook moom di wax soxla mu ne ko suñ demee yow dangay maay wax ba mu ñëwee xool ko ki ñëw xoolut noonu xoolut dara jaamu yàlla bu am soxla te man kenn maa ko mën a faj te man la ko yàlla sant dama koy def xaleem mu dem ca bopp ba benn mbuus boo xam ne defoon na million bu waroon a def ci sóorooru jumaa ji muy def koy dox bu koy Cheikh Ibrahim pour ñu xam ay relation fu ko teg bala ñu agsi ci li tax a man damay wax gars yi ne leen man suma waxtaan suma conférence bu italien bu mbadako nag bu mbaaw ak yépp ci em bu ñu ñi teew ñu teew ki santaane conférence baa ngi fi ki santaane conférence baa ngi parce que une heure ñu wowul cinq heures boo njëkkee ba seize heures wax dëgg yàlla ñu ngi jël acciné nga ñëw xool beneen relation ne naa la sàttut ci muy koo xam ne dañ ne daf koo bëgg wala koo xam ne dëggam yàlla ni moom nga ñam xool cagaana Brejnev ñëw teew bokk ak baay jotaay Tito ñëw dakk ak baay jotaay kurma nekk ki nga xam ne moo leen di ganale kenn gënu ci yàlla kay kay kurma dafa chrétien Genève moom yàlla amut mooy dundal parce que communiste du ko ko kurma présenté kii suma waajur la nga bàyyi moom jullit la Brisbane xaw a nekk jullit ñi ne ñoom ku dul jullit daanaka faale bàyyi na ko déedéet yow ki la wax lislaam ñun la ko waxee baaxoo ñu déglu bu baax bàyyi na ko àdduna bi nga xam ne man ak yow ak ñii ñoo ko bokk daf may samandaay daf may niru benn village bu ndaw xoolal bàyyi fi war a jëlee Brejnev ak fi koy yóbbu oustaz mu ne xutb bi nga xam ne mu représenté yàlla ci kaw suuf ak xutbi bi nga xam ne moo amee puissance bi nga xam ne mën naa taal bouton bi mën naa taal guerre mondiale léegi te gëmul yàlla mu ne ko àdduna bi daf may samandaay man en tant gis-gisu l'islam bi mu ko gis mooy ne village la boo xam ne ñun ñëpp ko bokk village boobu ñu bokk nag bu jant bi xasee fekk ba ba muy sow war nañuy yëngu ci lépp loo xam ne intérêt village bi la lu koy setal lu koy sécurité lu koy développé ak lépp loo xam ne intérêt la boo xam ne doomu aadama ci lu dul yoonu kenn ci gëm-gëmam nekku ca ñëpp ñu dimbalante ci pour jañ lor indi njëriñ juriseet na ko ah naa mun na ko kon de gannaaw jàpp bi sababu ci bëccëg lay nekk kon kay yow dama lay accolade xool nga ni ko changé ci saasi kooku kon ay relation du xàmmee murit du xàmmee Baay Faal du xàmmee Laayeen du xàmmee Tijaan du xàmmee mi am relation mi koy teg ci cadre bi nga xam ne yow moom la sëq ak yow Brejnev àdduna la sëq ak moom convaincre na ko ba mu jóg ko boo Brejnev jóg fokk la su fekkee ne ki nga xam ne moom dafa noonu bàyyi ba def ak moom noonu bàyyi nii la def ak moom te kooku bés bi mu génnee àdduna fekk bàyyi ngi toog téye téeram di jàngale bi xabaar bi ak see bàyyi daf ne alhamdulillah ñëpp ne teg mu toog moom yàgg ne xam ngeen lu may sant koo xam ne daf laa noonoon wala koo xam ne daf kay loolu kay moom macha allah mata laa wax ñu ne alhamdulillah maanaam ñu liñ mooy dafa nekk bàyyi na leen déedéet dama ñi si sama xol seet bi ma déggee xabaar bi ci seet sama xol mu jeex benn baatu mbokk nga éyale ko li ne moo ko dal nekk ci ci loolu lay sant yàlla léegi kon kii ak li yëpp relation ko teg euh, may dina wax ne relation ak sëriñ si ko teg itam ci tariqa du ko teg itam ci parparloo daf koy teg ci gannaaw moom Brésil ñoo bokk àdduna bi daf koy teg ci ne ñii ñoo bokk diine ci ñoo bokk benn téere alquran ñoo bokk xibla boo xam ne fa la ñuy julli suñuy jublu jublu suñuy julli ñoo bokk réew mi ak moo leen intérêt réew mi ci lu koy aar ak lu koy développé ak autorité yi nga xam ne suñuy taalibe ñoo leen yërif fu ñuy war a jaar ak ñoom ba ñuy jëriñ taalibe yi di leen ñàkkaloo kon ko bokk kon relation ba dafay gën a doon di gën a te day gën a yitteel euh, li ma leen rek danaa fi may njëkk a leeral mooy tënkuwut ci tariq ay relation bi koy firndeel mooy te bu ci nekk da ngeen ci dégg am na relation seen bi ñuy ubbi jumaa yi ki nga xam mooy xalifa bi yàlla mooy muy ubbi jumaa ji te mu doon xaritam lool di sëriñ Fallou dafa énu woo leen xalifa yi nekk ci Sénégal kër gi ne yépp ñu teewee si ñi nga xam ne ñooy tiijaan yi te di tiijaan yu mag yëpp xalifa yi tiijaan yu mag yëpp war a bokk benn délégation pour ànd dem am ca ka nga xam ne moo féetee mag wax kenn ne ko ah ñu de am na problème Cheikh Ahmed Tidiane ñuy suñ sëriñ daf ñu aaye ziyaare wali wu diwu Tidiane te ñu ngi jëm ci jumaa yu murit kooku loolu lay xalaat ki nga xam ne moom loo wax ji ne ko waaye consulteur Ibrahima Niass euh, ci waxin sax moom daf ne borom pexe la te du pexe xam-xam la kooku on bàyyi téléphone soo gisee mooy invité yi ñun bàyyi daf ñu yaree jàpp leen seen kurus ci wirdo bu leen di ñaayoo lu ñu leen waxit na leen neex ngir cheikhul ngir si baaxam parce que laal sëriñu jàmbur mu laal sa sëriñ jaaduwut kuy wax na wax lu baax parce que boo waxee benn bon ñu tontu la fukk yu bon yaa saaga sa sëriñ moo tax moom bi ñu kooku parce que ku am ko eb bàyyi bay na la li nga jàngal ak li mu la yaree doy na la vingt quatre heures même sur vingt quatre ba ba mu fiy jógee ci yeneen ak a teesante ak a sonal taalibe yi ak saaga ñuy saaga sant ko kenn kenn la ko sant moo tax même su doyee sax lu rafet damay yem ci tudd tur rek presque te xam naa ko bu baax ndax ñun ñëpp dañ laa ñëw ñu ci bëri kooku oo ko téléphone ne ko ah madame yoon bi ne nee na dañoo xaw a jaaxle ndax suñu yoon wi ñun wax Cheikh Ahmad Tidiane daf wax ne bu leen ziyaare waliwu du Tidiane te ziyaare boobu bàyyi moom ni mu koy waxee mooy ziyaare boo xam ne da ngay sàkku ndollal ci moom waaye ziyaare courtoisie ziyaare dox bokk ziyaare rafetal Cheikh Ahmad Tidiane aaye ko kenn bàyyi moom xam na bu baax waaye dégg nga ni muy gàggante ñiy wax moom. parce que maa ngi jëm ci tariqatu ci ay relation mu ne ci ma téléphoné ne ko ah ki ne ko maag moom ak yéen yaakaar naa bu subaa buñ dajee mu ne ko ah sëriñ bi yow foo war a ñëw la mu ne ko déet yéen ci jumaayu murit ngeen jëm ci te man maa nga jëm ci annal masaajida lillah aaya ji daf ne jumaayi jumaayi yàlla la man ci jumaa yàlla laa jëm moo tax mën naa ñàkk a dajeeg yéen gis ngeen bi de koy bàyyi boobu la wax ci relation cot bi soxnaam génnee àdduna yaayu ki nga xam ne mooy xalifaam di mbokkam seen cheikh nii di Seyda Astou Sarr mu cheikhul islam jur xalifa garage bu laay di yaayu baabale mu di yaayu Seyda Mariam ñu ngeen ziyaare nii ci 8 mars te boobu laa wax alquran seen yaay bi mu génnee àdduna càmmeñam jim bàyyi wax ne ko duggal ci bàmmeel bi aw ko taale bi sëñ Bachirou Mbacke maam Fallou Dieng la koy wax moo leen murid yi nekk biir Kaolack bi nga xamee ne sëñ Bachirou ma nga fa nekk Ndorong bàyyi nekk Médina jumaa ji sëñ Bachirou bàyyi di tabax sëñ Bachirou ci boppam daf daan jóg di ko wërsi di encouragé bu baax di jógee ndooroon di ñëw miin bu baax keroog bi jumaa ji paree ba ñu julli jumaa miin te ñi nga xam ne ñooy wàtte sëñ Tuubaa amaguñ fa jumaa ji ñu jullee jumaa góor gii ma leen di tudd turam si Fallou Dieng di taalibu sëñ Bachirou ñëw ne ko sëriñ bi ñun day amuñ fi jumaa bu aljuma jotee ni ñuy def mu ne leen képp kuy murit na dem ci jumaa yi kooku doogu ko ci institut islamique bi nga xam ne man directeur adjoint laa fa ci sëñ sëñ Mahi actuellement ñi c'est deux région bi yëpp ko jànge université la rek bourse bi ci bàyyi ñi joxe parce que bàyyi ci itteem fexe na ba 73 Anwar Sadat président bu Égypte yónnee ko ay jàngkat yoo xam ne Égypte la ñu jógee gouvernement di leen fay seen bii paase rek président Mourtani joxe na ndigal bu si ñi nga xam ne mooy jàngalekat yi Mourtani yebal Cheikh yi jàngale au lieu ñun la ministre bi képp ku ci am ci jàngalekat yi rek ci Sénégal ci bàyyi parce que moom la ñu yónnee juróom fukki jàngalekat yoo xam ne mu teelee fixé école boobu bisu bi bàyyi njëkk am war a dafa wax ne concours lay doon ki xam ne moo raw ci xam-xam ëpp point moom la jox bourse bi si benn collègue bu ñuy wax moom ñeng daal raw ñu daal di ñëw am ñenn ci seen xalaat ñu ñëw ci bàyyi ne ki raw de murid la bàyyi na leen laajuma ki raw ban tariqa la ki raw rek laaj te ku raw moom lañ koy jox kookoo raw ci école baay bi ñu jox ko bourse bi mu dem jàngi tey mooy taalibe baay ci taalibe baay yi gën a mag ci séeréer yi ndax moo jiite ansaar diin moo jiite taalibe yi commencé ci tur relation bu Tiwaawan bàyyi fu mu tuddee Seex Sidi Hajj Maalik rek lu fa wax lu baax la lu rafet la jaamu yàlla boo xam ne yàlla may na ko ba mu nangul ko tam nangul ko ay mayam ndax dégg-dégg mu naan qabulu alxaaji Malik mahabbatuhu fi qulubil ibaadi maanaam xéewal gi yàlla jox alxaaji Malik ba jaamu ko ak mbëggeel gi ak xam-xamam lépp bàyyi def ko mas nañ koo wax ne ko Dakar gii tey conférence ne ko sëriñ bi dañoo bëggoon nga ñëw di ñu Dakar waa Dakar ñoo ko ñaanoon baay baay ne leen xeres naa ko parce que tool xaaji Malick la baay mosu fee gàmmu gàmmu gi ñu na ko ubbi rek ñaanal nit ñi dox bay Omar Fatou Diallo waaye dafa wax carrément ne xeres naa ko ndax tool xaaji Malick la waaye nag maqaama bi ko yàlla jox maqaama boobu duur maqaama boo xam ne lu mel noonu daf koy baare moo tax tey Dakar lépp waaye mu ne bàyyi si moom muus nit ñi di ut dajale mag ñëpp def leen ay taalibe moom mu jël mag ñëpp def leen mu mel ni najaraat luñ jur rek mu jël luñ jur rek mu jël looloo tax Dakar tey daj na kon kooku amul problème mu tariqa ma ne la gërëm Seydi Hadj Malick fu ko bàyyi tuddee dana wax xéewal yu rëy yi ko yàlla may sant ci yàlla naka noonu Cheikh Omarul Fuuti yu fu ko tudd dana wax xéewal yu ko yàlla may waaye nag gannaaw borom ambition la te borom yitte ju kowe la te bàyyi ma doon ñaan jur Cheikh na Ahmed Tidiane fu mu tuddee li gaa yi am dana ñaan yàlla double ko jox ko ad wa atlubu daan fa zalik soo jógee ko ci Maam Xaaj Maalik ak ñu baax yi mu doon wax ci moom nga fekk fa tarifa bu siiw ba xutbul taafatayni bayna al mashriqayni muy Abubakar sëñ Babacar Si bàyyi mas naa dem ci waawoon pour monsieur Mouhamadul Habib tuumal ay nit sax ci yoon wi yoon woowu sas barxam ci léeg-léeg koy nett ak ñeneen ak ñeneen keroog bi bàyyi àggee Tiwaawoon Cheikh Sidi Abubakar Si kalifa ba néegam ci boppam bi ci la dalal Cheikhul Islam Hadjul Wahid bi ko ustaas di nett li xalifa bi faatu nii di ki nga xam ne mooy Cheikh Abdoul Aziz Al Amin moo wax ci làmmiñam ne ustaas loolu mën nga koy laaj ndax man la sama papa waxoon ne demal toppatool ma ba ba mu baax nga defal ko ndax sa baay la maa ngi yow te man maa ko doon servir. nga avancé tuuti. waa kër Cheikh Bakar relation bi dafa dëgër parce que. maam Alaaji Abdoulaye ñu nett nañu ne. maam Xaaji Malick si keroog bi nga ne. ñii bàyyi sëñ Babacar si ñu ngi jële yaay Cheikh Tidiane si ak sëñ Abdoul Aziz daf ne ko boo demee jaaral sa kër bàyyi Alxaaji Abdoulaye foofa la jaar fa lañ waajalee mu dem sëñ Abdou ci boppam daf koy nett situation am na Tiwaawoon ba Cheikh Tidiane si Almaktoum salaamaaleykum Cheikh Tidiane si Almaktoum décidé defar zaawiya boo xam ne daf ciy rob papaam zaawiya boobu am na gis ne zaawiya boobu ni mu sëseeg zaawiya bi warta a nekk ba am na ci kilifa yi diine yoo xam ne signeel lañ ne zaawiya boobu salaam zaawiya ba warta ak kër googu keroog bi nga xamee ne si na ci bàyyi ne ñoom waa kër sëñ Babacar Si dañoo bëgg a def te zaawiya boobu dañ fay def xabru ki nga xam mooy sëñ Babacar si Cheikh Ibrahim def na leen tabax leen te danaa leen dimbali këyit gi nga xam ne moom lañ amee te daanaka ñëpp si nit ci ne mënta nekk benn signature ci absente mooy bu bàyyi te ñoom ñu ngi ko amee ba léegi dem leen parce que yonent bi daf ñoo wax ne ju'ilat liya al defal naa leen suuf si lépp muy juma def naa leen suuf si muy jàkka dañ leen tabax man danaa leen dimbali boo ko bëggee close ci ki nga xam ne mooy Babacar sëñ Babacar si parce que Tiwaawoon laa njëkkee keroog bi bàyyi demee Tiwaawoon fekk mi ngi ci biir xabroom bàyyi dem di ziyaare xabru bi relation bu rafet mënta àgg fu mënta passé foofu biñ ziyaaree xabru bi bay waaj a génn sëñ Cheikh Tidiane seen fi mboolem li Babacar si jiyam fi bàyyi ci la waxee kàddoom góor ne ah alquran ji ma dégg ci biir bàmmeel bi te doy na waar inna alladina sabaqat lahum minna alxusna ulaika anha mubaadun aaya yi mu dégg ci biir bàmmeelu sëñ Babacar Si ma nga naan gaa ñi nga xam ne su ma ngëneel ak su ma mbaax jiitu na ci ñoom ñooñu sori naa leen safara te mboole mbokkam yi kenn déggu aaya ñooñu moom moo ko dégg ci biir bàmmeel bi sëñ Cheikh na Ahmed Tidiane si moom la ko dégg mboolem njaboot gi ci moom lañ ko déggee ne ko bàyyi ci dégg naa ci biir xabru sëriñ bi alquran bi neex di jàng ci fa yàlla di waxee ne gaa ñi nga xam ne su moom gëneel moo jiitu ci ñoom sëriñ naa leen sama sëñ maax yi mi ma booleeg sëñ Cheikh mi ne na ma aaya jooju avant bàyyi di dem man gént naa ko seen Babacar Si di ñëw mbiri na bàyyi nit ñi di jàng aaya jooju mu ne ma waaye jotuma kon kooku mooy sëñ Babacar Si nga ñëw ci Cheikh Diar si almaktuum mi nekkoon xalifa bi xool relation baay ak kër ko baay dafa waxoon ci Lamine Guèye keroog bi nga xamee ne mi ngi contre Senghor Senghor di woteeg Lamine Guèye suma yaay fekke na ko bu baax nett li ma ko wax sama papa ci ñi fa séeséeru Lamine Guèye la ndax baay dafa waxoon ne doo gis Mouhamadou Lamine di woteel Senghor booba wax ko ca jafe na te moom daf ko wax daf ko daan jëfe Cerno Ahmed si xëy créé parti PSS parti politique ku ko créé waa nga dugg ku ko créé président de la République nga dugg Cheikh mu yemb ko digg cëp moo ko doon bind guddi moom ñeen beneen affaire bi dem population bi yëpp ànd ak ñoom diine dafa Sénégal doole te boobu Cheikh Ibrahim mi ngi ànd ak lim ànd ak euh, Tiwaawoon ànd ak lim ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane ñu sampal ko ndund bàyyi ngemb ko ñu ñu baax ñëpp ngemb ko su ngeen déggee conférence seen Cheikh dal ko dégg mu ne sama benn jigéen bu nekkoon ci téléphone ba motti si ma ma ñëw mu ne ma déglul kii wax ak Senghor ne ko gañe nañu mu ne ko nu ñuy def mu ne ko nañ sàcc emuñ ca ñu di ñu commencé di ko tappaas di ko tappaas ba ne ko ràcc ci kaso Cheikh Ibrahima jóge ci soldat la soldat la ni sol seen dàll ñëpp ba bi ñu koy génnee ci kaso muy photo boobu mu ànd ak bàyyi sol ci bi nga xam ne dafa am ci kii weex ak yu ñuul bu fekkee noir blanc la bu fekkee couleur la xaw ma baax la ñuul gaa ngi sëkk watoogut Cheikh Ibrahim moo ànd ak moom ci fi ko tëjoon kuus ba ci waa woon ci biir këram mu dugg këram mu soog nit parce que kooku mooy kar mooy keroog bi ñuy ubbi jumaa jooju moo taxaw sànq baaraam Senghor ci diggu Touba. boobu xam ngeen lu xew doomi kër sëriñ sëkkoon ci kaso bi 63 Maroc lañ doon jànge seen bourse yi table ñu manifester ambassadeur ba rambaaj jaxase carte gi doon nañ fi ci secrétaire boo xam ne dafa ëmboon ba bu dëgg bi tuur na ay aj lañ leen boole ak ay euh, fetal ci avion bi ñëw ñu yóbbu leen sàmmee doomi kilifa yépp beneen baa ci biir wàcce waawoon wàcce waay ma nga boobu nag nga xam ne ci la bàyyi doon wax ne man ci jumaa yi innal masaajida lillaahi laa jëm da koy ji imitation yi Touba ci ubbi jumaa yi Touba keroog la yëkkati baaraam Senghor a ngi toog daal di ne li may wax damaa bëgg ngeen déglu ko xale yi dañ doon manifester ca Maroc ñu jaay leen doole tëj leen su fekkee ne ubbiwuñ leen jox leen seen ak mag ñi danañ manifester te maa ngi nii maa koy jiite ci digg Touba. ci saa si rek si moo réagir ah sëriñ bi affaire bi àndul foofu parce que man bu bëggoon nga ñoo ci sa doom ne ko bu ma booleeg àdduna bi maa jur ñëpp reyal ñëpp mbaa ngi jënd ñëpp cat yaa ngi seen foofu de bande bi maa ko jëlee ci cheikh ma cheikh cheikh imam cheikh Cissé mu ne ci band yi nga xam ne moom la Habib Mbaye daan enregistré ku yàgg am enregistrement ñu déglu bu baax relation bi Mamadou Dia déedéet waali waa joojo ñaan cheikhul islam ne ko ni nga jubale si ak Senghor band bi du benn secret maa ngi ko teg ci rajo Alfayda maa ngi ko tuddee ba bàyyi wax ba bàyyi waxee na ko bëgg nga jubale Senghor ak Cheikh Tidiane Sy déglul bàyyi lim ci teg ne ko Senghor de at a ngi ñoo bokk réew mi mais tegante wuñ parce que soxlawul ci moom dara parce que amoon na autorité bu yem ni ak relation internationale bu em ni 63 bi bàyyi bi uy ji ngan kurma ñu koy lalal tapis rouge Abdou Karim Qasim ca Bagdad Jamal Abdou Nasser ca Égypte su laay ca Chine ba mu daj tournée boo xam ne Mohamed V ca Maroc Koweït boobu ñu bëri amul kay jigéen ndax keroog bi Sénégal di fête fête de l'indépendance am 1960 avril ba ca boppam 29 avril mi ngi fekk taawu Alaaji Ibrahima Niass am audience ak ki nga xam ne mooy buuru Maroc pour préparer yoonu Baye le 29 avril 1960. mu ne ko dama bëgg nga jubale leen mu ne ko Senghor juróom-ñeenti atam yi di tegantewul bët man waaye Cheikh Tidiane Sidé doomi soxna la jar na ko ñi laaj relation bi daal di jóg moom waaye ngeen déglu la fa xew booba Senghor mi ngi ci jaay doole euh, ak fexe lépp lu mu bugg a ci kaw jullit ñi teg leen ko bàyyi na tël rek rek Senghor ne ko ah Ibrahima Niass dégg li buur gi ba wax bàyyi na ko lu buur gi ba wax ni waa ni waa jéego jot gi ba wax mu ne ko buur gi ba dafa aaree ren koor ci Tunis parce que nee na koor dafay yàq économie koor dafay yàq économie waaye sànni loxoom bi ne ko bu ma waxati waxam koo xam ne li yàlla ak yonent bi santaane ko dal koy mooy kooku duutul suñ bopp ci dara bu ñu kenn waxati woon emu ca de daal di monti surmonté ci kaw ne ko yaa ngi nii doo oor man damay oor na bëccëg jot yow si oor nga ñàkk oor man Ibrahima Ñas moo oor ba digg bëccëg ba bi tàng wax ma yow loo mën taman bëgg waaye xam ne fii di jag mu nga baax ay wax kon kooku jógee nañ ci Babacar Si sëriñ bu mag bi kooku kaafu xëy na Cheikh Mahamad Tidiane dégg nga El Maktoum euh, sëñ Abdoul Aziz Si moom la Cheikh Ibrahim mujj waxat ci mboolem kër sëriñ si loolu ci même semaine bi am na benn témoignage bu nekk internet ñu def ci photo. sëñ Abdul Aziz si senior al Khalifa sëñ Abdul Aziz al Amin al Khalifa def ci photo baay def ci témoignage témoignage boobu man parti laaj ci la ma Abdul Aziz doon waxee bi ma paree man maa ko jox micro bi keroog bi ma ko joxee micro bi avant muy wax daf ko yes Oustaz Barham ne ko goos bi kan la Oustaz ne ko du goos kii diw la diw nanga nag parce que fi mu dalee woon mooy fan mooy semaine culturelle bi mu njëkk a tuddee Baye Cheikh Ahmed Tidiane bi mu tuddee Baye ci grande mosquée boobu xalifa bii mooy adjoint xalifa jiite délégation bi man ku ñuy wax Cheikh Cheikh Tidiane mu Serigne Mbaye Niass dégg nga ñu fekk fa Oustaz Barham Diop ak Serigne Mamoun Serigne Mamoun am ci jox ma micro central man maa ko jox kàddu moom sëñ Abdoulaye ma ne ko sëñ Abdou Dey maa ngi ci moom laa jëm si masta romb baay bi muy dund ak bi ñaxabroo fi ndax chaque année buy dem Birkilaan ci Tanzania bi Medina Baay lay jaar te bu fa jaaree buy dem la jaar fa buy dëpp kon kooku euh, moo tax bi mu génnee àdduna fekk na Égypte ma xam ko bu ci moom rek laa a def ñaari marsiye daal di jàng benn marsiye ba doomam sëñ Mansour ne ma maar du ma ko damay ñëw mbiri na jël si sëñ ndaw marhaba marhaba bismillah kon gannaaw bu jógee ko Cheikh Babacar Sy relation yi Baye ak Serigne Sy eh, Cheikh parce que kër Babacar sëñ Babacar si ko sëñ Mansour ci ma koy gàttalal mooy sëñ Abdoul Aziz mi nga xam ne ko defee kër benn mbedd dafa jaar keroog ñoo toog nii benn président daayira bu tiwaawoon keroog mu ngi salaas mu ne ma ana bi ma ne ko dafa dem Maroc mu ne ma su ñëwee xoolal wax bu rafet bi taalu bi bu mag génn àdduna ci Medina Mbaba den rek Medina Baay sëriñ bi dem Maroc mu ñëw fa gannaawam ne ma man de maa ko wax daan ànd Maroc waaye fi mu ne mënatuma waaye wax naa suma njaboot yëpp ngi ci bandi yi fu ngeen fekk seen baay Cheikh Ahmed Tidiane jaar leen ci gannaawam takk leen ci gannaawam lu leen wax ngeen def lii laa mujj dégg ci si mu tegal ma ci ne su ñëwee ne ko nag ñëwoon naa fi waaye gannaaw wu mu ko dama ko bu gën a rafet bi bàyyi waree dem London ci semaine boobu mu ñëw gàmmu kaneen ci nijaayam bàyyi yoon na ci nijaayam ne loo xam ne Abdou Aziz ne ko bu génn mukk dëkk bi ci gis mu ko na ñëw uy si mu ne masta fanaan gàmmu kaw la kaneen moom sëñ Abdou Aziz si alxalifa ni gaañu yàlla yàlla leer lu mooy bés boobu parce que bu gàmmu gi tasaan day jël oto dellu Tiwaawan keroog mu ne man sa dem mu bàyyi ba neuf heures mu ñëw uy si baax ba ñëwee mu ne ko kan la mu ne naa koo gis lool wax ak moom waaye gannaaw gis naa la baax ne na la ko wax bànn yaa ngi lii nar a xew ci Sénégal ñëpp mu ne keroog Cheikh Ibrahim wax na moom ne te nii lay demee baat bu mujj bi mooy nag ana Abdou Aziz mun a mun a ko ba leen yii nag bés bu xewee bu leen daw te bu leen ragal ndax kuy jur kuy rag kuy ragal juru leen kuy daw juru leen dénkaane yooyu keru ci loxoom la ko teg moom la bàyyi lu ca wax ci kër ji ci li wax sëñ Abdou Aziz nag mooy sommet bi relation yi ci waawoon ak ndax chaque année dana ñëw miir bàyyi ñaari yoon parce que tànn na fi bi moo bu sëñ Alaaji Malick si radiyallaahu anhu ma nga mbir kilaan bi jigéenam ziaral bi chaque année sëñ Abdou koy jiite gàmmoom bi sañ année sëñ Abdou koy jiite te moom te duggee ci waawoon dem mbir kilaan te jaar Kaolack te du jaar Kaolack mukk romb Cheikhul Islam Adjou am na ci boo xam ne man maay seede dafa dem di ñëw ba Medina. oto bi ñëw taxaw ci buntu kër xaaj Abdullah fekkew tension bi xaw a jóg bopp yi métti man mii la wax ne ma bàyyi seetal ma ko toog ci buntu bi ñu may ma ma tàllu tuuti ndax sama bopp bi dafay métti bi mu ko waxee ak bi may del si matu dix minutes ma fëgg buntu bi kuñ noonu fexeel ba buñ ma déranger yow nga ñëw di fëgg kan la ma ko man la ah, ci buntu mu ne ma lan ma a ko sëñ Abdoulah fekk ci bunt bi mi ngi toog di laajte ndax yaa ngi fi ma ne waaw loolu kay danañ yëngu ci ñun bi jógee ñëw dugg ci jumaa ji sëñ Abdou bi jullee ba pare mu ne mbooloo mi ngeen baal tey dama jëloon décision jaar ci sëriñ bi siyaare ko daal di jàll te bëgguma woon a déranger kenn tey ndax lii sama digganteeg sëriñ bi dafa daan taxaw ci bopp di jàng yaasin boole ko ay rongañam ñun ñëpp ñu koy dégg baatam bu neex boobu mu ne waaye bi ma ñëwee ba jub bi bu koy yor du ma déranger nit ñi ci la mel ni ma dégg kàddu Seydi Hajj Maalik radiyallaahu anhu ca wax jëm ñu daan wax ne waliyu moom nag ratt ñoo yem da ngay jël doom ji soo buggee mu bàyyi batt bi batt bi fees ak meew da ngay doom ji nga yeew ko ci tànk ginnaaw bi sama kay wax jooju moom foog yor bi ma doon yor pour siyaare ndànk bañ a déranger nit daal di ñëw jubal si kër ak xaajal bu baay daal ne ko laajal ki la oo bi mu lay oo suma oto baa ngi rëlanti su noonu ma nekk fi rek tey ba ñu seen laaj yëpp bu jëlee la tey duma dugg ci bàyyi te xam nañ ma bi waaye déglu lañ ko tontu sëriñ ne ko dama nekkoon suma néeg ñu ne ma kaa uyu sa baay ma xam ne ndigal jig na ma jóg ci loolu laa ñëwee ci ñëw loolu laa uysee ci loolu lay àndeek bàyyi sa digal ak kilifa bu digal comme war a digal waaye sa digganteeg bàyyi xeexama ci keroog bi muy jaale si Cheikh Ibrahim Alhaji Ibrahim la waxoon bu rëy ci saal ne Alhaji Abdoulaye xalifa bi waa Ndila Aziz ak mboolem li bàyyi jur ak ay kàngam ne leen seen bàyyi ne ruuj na euh, ji na bayaat na góob na bojj na Euh, sokk na wal na togg na togg na ba mu teg na teg palaat yi yéen nekk lan la desalu leen lu mooy rafetal lekk rek lii la leen jaare moo taxoon man bi mu génnee ma xam ko bu baax ci woon xalifa bi Seydil Hadj Abdoulaye man ma fekk keer juróom-ñaar fukki nationalité ñoo ko jullee salaatul raay keroog def naa ci ñaari marsiya benn bi maanaam dégg nga ama ji ma ko dañ min filma daa ini والقرى فداعى بحمد أفزع العلم والورى أم الأزهر الغراء في مصر قد غرت البغداد بلغت من القرى أم القرويين حتى الدهر وانتهت وإلا فما الخط فتي هين لو قرنت بمصيبتي فعبد عزيز دمه الله في السرع ci dama sëñ Mansour ba moom ne ma lii damay ñëw bu ngeen dina jël si kon foofu mën naa fi close gannaaw buñ jaaree ci ki nga xam ne mooy sëñ Babacar Sy ak wax yu rafet gi baa di wax Seydi Hadj bu ko tuddee ci li ko yàlla may ci xabool ak dégg nga mahabatul ab ibadillahi ak fimu jaar ak sëñ Mansour ki nga xam ne mooy euh, sëñ Babacar Sy euh, euh, naan ñooñu sori nañ leen safara Cheikh Ahmad Tidiane doomam yëpp da ko ñu ne dara waaye dégg waaye ci mbaaxam mu wax leen ko parce que loolu la moom relation foofu la koy teg kon mën naa jógee foofu direct soo seetee ci li nga xam ne mooy relation ak baay ak ñoom mi ngi dalee ci mbindam Serigne Touba ak baay baay daje na ak mbindam Serigne Touba lim taalif jàng na ko waaye làmmeñam suma nopp 1973 nee na mosu koo teg mosu ñoo daje boobu imaam bii di xutba tey ci nit a bàyyi ci ñu bàyyi mujj jàngal la 73 bàyyi jàngal na ko doomam Muxtaar ma nga maa ci fàttali bu baax Seydil Arabi boobu bëgg nañ bu baax boo xam ne Baaba Lamin mu miin ko ndax ma daan yóbbu ci bàyyi ñi ànd ca lañ ko miine muy Isaaka su bàyyi daan jàngale man dama daan doomam Muxtaar laaj na laaj bi. diggante euh, Touba ak Medina ak luñ ko fa yu demee noonu bàyyi na ko mosuma koo gis mosuñoo daje kon bi bàyyi bi mu jàngee ay téeréem yéem na ko am na ay machines yu koy wan ne ko bëgg yonent bi la waaye mosu koo gis mosu di planté loolu moom laa ñu bàyyi sama sant waaye ci mbindam yu rafet ak xam-xamam bu rafet ak bëgg yonent bi bàyyi bi mu njëkkee taarif téere am 21 ans. dafa def référence ci li sëñ Tuba wax daal ne qad fi hada al majaal al amjadu xabibu taaha malikiyu ahmadu fa laysa yujibu sawaab al jismi balaatu fataawu ne yéen arab yi vingt et un ans bi ma doon taalif téere bu en ci li ma ko taalif ci yar bakkan nekk nit ku ñuul moom tere ngeen jàng bi ndax li ci def ngeen ko gis fekk moom tere bi te nag am naa référence ndax Seex Ahmadou Bamba am jët ki nga xam ne moo gën a tawe ku tedd ku tawe mën nga ko mën nga ko qualifié te Asan ma jaara ahlan bëgg bàyyi ko qualifié ne ko ahlan wa sahlan Seydi moom marhaban bi ko marhaban al am jët ak xadimu taaha ak maliki yu ndax daf ne kat xaala wax na fi haasal majaali ci tem bii may wax ak yéen nit ku ñuul der bu ñuul teglewut a ñàkk xel doon ndaw terewut a am xam-xam sëñ Bamba nee na der bu ñuul teglewut ñàkk xel te ba mu ko waxee yàgg na sa dëgg kon kooku yàgg naa référence koo xam ne bi ngay am vingt lu këri ko dindi jàng ko ba man cee référence mais relation directe diggante Touba ak cheikhul islam Hadj Ibrahim mi ngi commencé ci xalifa bu mag ba di sëñ Moustapha Mbacke taaw sëñ Touba li nga xam ne moo fondement jumaa ji tëj ci raay ba mu àgg Touba ak ñi dafa bëggoon bàyyi loolu bàyyi bëgg ko loolu te nee naa leen bàyyi sëriñ ndax dafa wax ne li may fàttali ne tiijaan laa rek mooy bu tàkkusaan jotee bu wirdo jotee ba ma làqat ci suma kurus su ma paree ba laxas ko rek benn jullit laa ci jullit relation ba dëgër lool ba àgg ci sëñ Moustapha Mbacke taaw sëñ Touba évité Baye Touba ngan gu rëy keroog jàngeen na fa benn leçon ndax bi ñam yi ñëwee ba tegee Baye nee na dafa jël moom tibbukaay bi cugwaar kuddu battu lu mu doon moom sëñ Moustapha ne naa ci Baye tey ci loxo bi ne ah sëñ bi doo bàyyi loo ngay def. mu ne ko dafa am lu la bëgg a wax mu ne waaw mu ko fi mu ne gaa yi kuy séddale kenn ku ci nekk fa sa waay nekk foofa ngay gën a def la gën a baax kon man ndab li ngay lekk maa ciy def def ba muy waaj a tuur joxoon na ko fa kàddu mantu bu rëy xaritu waa taalibe sëñ sëñ Moustapha bu mag bu dëkkoon kaw la benn bawol bawol boo xam ne amoon relation baay loolu doxoon ci ngan yi ba mu saagalee bi ko sëñ mu jox baay ak nim em ak nim baaxee ak baay nim bëggee nit lu baax dafay yëkkati cinquante mille def ko ci marto bi na ko loolu de yéen ko tey itam xëyoon ko waaye ak Touba sëñ Moustapha mu invité ko invité sëñ Moustapha Medina Baye Baye Niass invité na sëñ Moustapha kaw sëñ Touba Medina Baye ki ma ko nettali ci ñi xale yi eno añ yi ci la bokk xam ngeen kooku fekkee fa ko dalal fan la dafa wax sëñ bi bi mu ñëwee ko man xawoon naa jaaxle de ndax bi ñu ne yaa biñ bi ngat gi paree ba ñu yaa ngi ñëw fu ma lay daloon rek fu ma salaat ak xeet yàlla dimbale ma néeg ba may duggee xalwa ca kaw ma ne kii ci kaw jumaa ja rek laa koy dal fa lañ ko dalal fa la keroog nag ñi ngi gërëm waa protocole umum nga leen di présenté macha allah mm, gars yi jógee Kaolack ñoom Bay ñoom ñëpp ma bi ko sëñ bi ñu ngi lay tëddagal soppe ba keroog ngan nga xaw naa protocole bi xaw na yëngatu ndax kilifa bu mag dëkk mbiri baay biñ añee indi añ yi ko ba sëñ Moustapha Mbacke war ama añ ak baay ak ngan yëpp commencé restauration bi commencé ci la benn waay benn benn kilifa ci kilifa yi nga xam ne mbokkam bàyyi la ne gën a ubbi benn nag daal di mos daal di xëy xëy xëy nii nag mënu ko lekk dafa ëpp xorom xam nga bu fekkoon protocole la foofu lëj na bàyyi ci saa si rek mu def réaction daal naa jël leen jël leen jël leen jël leen yóbbu ñu ramas bool yëpp xam ngeen ne maanaam këy di togg ba heure bii nga ramas yóbbu doon toggaat moom sa nekk. te gan ngaa ngi nii di waaj a rax man ci saa si bàyyi oo ki jiite restauration bi oo ko ba mu ñëw ci peggam mu ko soo demee moo leen palaat yi ko dëppee dindi ko yeneen palaat yu bees dëppee ko te indi na ñu sanse yi ñu dëppee yëpp daal di ko dëppaat yeneen palaat ñëw teg góor gi pilaat mos tànn waa moom nit xam na ko ah, ah loolu ci gàncax la dégg nga. su ko defee maa ngi Touba tuuti maa ngi jógee naa Touba bu Tiwaawan maa ngi Touba euh, Cheikh Ibrahim ci bu sëñ Moustapha boobu paree ba gane yóbbu ko Touba bu gane bi ko mu ñëw Medina fay si ngan gi sëñ Falloo toog bëgg ko lool fonk ko lool ba ba nga ne keroog bi nga xamee ne tabax na marché Ocass moom Serigne Fallou ca Touba ci Njaareem euh, ñaar lañ am na ko Touba am na ko Njaareem marché Ocass ba mu ko tabaxee ba bee ba set ba bees ñu war ko inaugurer keroog bàyyi la def évité de lël moom Serigne Fallou Cheikh Ibrahima ñëw xam nga lan mooy argument bi mandarga bi mooy photo boobu nga xam ne ci la Baye Niass lëngee Serigne Fallou muy photo bu siiw. lan nañu sëñ baara suma nopp keroog bi sëñ Saliou wàccee liggéey xalifa bii Cheikh Ahmed Tidiane yi jiite délégation yi Medina Baye man ca biir bañ demee ba àgg bi ma présenté ci ndigalu papa Cheikh délégation bi ba pare bi muy tontu ci la wax ne Serigne Fallou de lalam bi ñaar dong nga ci mu soxla kenn ki mooy si dimbali. te fu ko daan gunge fa muy àgg ak moom daaw fa àgg ak kenn photo boobu nag nga xam ne ci la lëggee sa sa sa sëñ Fallou nii la la maa ko filmé moom moo ko fa moo ñu wax ne ca marché njaareem la ba ko ba bàyyee ba ñëwee bàyyi mu koy ba diggante bu xóotoon la bàyyi mas na xeet yi kër yi wër jumaa ji yëpp parce que dafa am jumaa joo xam ne. 68 kër yi waroon jumaa yëpp dañ ko xeeti mooy bayaal bu rëy boobu ngeen gis ak jumaa ju rëy yooyu benn ceeb mos na faa jaar fekk jumaa ju ndaw ya di 37 ci daal ne eh gis mu teel fii day yi xam naa jumaa ji mag ji la gisoo mais bi bàyyi ci oddee kër yooyu yëpp àll ba yaatu lool benn euh, xaritu Sëriñ Fallou bu dëkkoon Kaolack te mii noonu bàyyi jaar fa. gis li bàyyi ko yaatu lool mu ñëw fekk sëñ mu toog mën na ko sa waaja day mën a ah, mën na ko eh kooku day moom sëñ boobu lay na mën na ko ah mën na ko dafa ko lam ko di àll ko di da koy tabax mën naa mën na ko loolu kenn mënu koo tabax dafa rëy lool ci saa si réaction bi sëñ Fallou di def rek moo lay wax ne moom xam na waaye mu toxal maraakisam yi daal li ki wax wax ji daal na ko libre devant suuf fii mën na ko ah déet mbàkke fii kay ak kon daal ngeen sens bu fi ak soon rek mu tabax. waaw. li mu rëdduwaat soon fii rek mu tabax. kon relation borom xam ne bu mm, dëgër la woon. Euh, Sëriñ Fallou moom ci boppam euh, noonu la meloon ak Baye benn bi sax doon na sa xóori Baye ndax daf ko sax ndigal ne ko mu ndax koy gunge daal di wàcc ko daal di wàcc oto moom sëñ Fallou bi ci oto baay oto sëñ Fallou chauffeur bi taal ko topp leen bu ñu demee ba fa xam ne mosu fa àgg kenn ci gunge mu soog a dëpp tàggoog moom jël oto biñ duggee Ousmane Thiam chauffeur bi doomam moom mooy oo démb ndeysaan Italie daal di génne mouchoir am fomp bi nga xam ne moom ngay gisee ci gannaaw fomp weer bi nga xam ne moo nekk si sa gauche euh, nga xam ne ci ngay gisee oto yi. daal di fomp pare-brise bi xanaa ñett nga mu làmp poosam ne daal di takk sëñ Fallou mott si ne ko ah Sidi mu ne ah mu ne ko ndox ne ko ñetti pare-brise bëri na ne ko mooy ñeent bëri na ne ko mu wàññi de bàyyi rek ne ko yaa ngi dégg mu ne ah mu ne mu ne nga wàññi benn pare-brise mu ne nga delloo loole mu lemaat loolu la ñuy delloo. kon relation boobu boo xam ne bu dëgër la te loolu dafa continuer di continuer di continuer ba ci al xalifa di continuer di continuer ba ci jamono Cheikh na Ahmed Tidiane xalifa bi semaine bi passé ba tamit ñaari semaine ci la ab sëñ Abdoulahat mu gaynde Fatma ñëw Medina Baye gane si ngir kóllëre boobu nga xam ne moo amoon te sëñ Moustapha ak Baye sosoon ko sëñ Mbacke Cheikh Mbacke gaynde bi bàyyam génnee àdduna mu sof ko rafetal ko lool mag ñi ne nañu xari ñaari xari tabaski yi bàyyi daan tabaski benn xar bi ki ko daan indi mooy gaynde Faatma mu sëñ Moustapha keroog ba mu génnee àdduna alaaji Abdoulaye di delloo teraanga jël xaram tabaski di ko yónnee gaynde Faatma gaynde Faatma génn àdduna sëñ Mbàkke soxna loo delloo saa teraanga rawul loolu léeg-léeg ñu daan maa ngi bu ñëw ba tolloo ci jumaa ji rek mu génne so ku dina ne wallaahi baatama allah kon diggante boobu diggante bu xóotoon la eh, dafa yaatu lool suñ ko toppee amoon benn sëtu Cheikh Ahmed Bamba boo moom dañoo waxoon bàyyi ne ko ku nëroon sëñ Touba la bàyyi fonk ko lool ba bu ñëwee chaise nga xam ne fa la daan taaj ñoom président assemblée nationale la nit ñi ko daan taaj maa ngi koy fàttali bu baax 73 léegi soo jógee foofu nga ñëw canaba cekkee canaba moom xalifa ba sëñ Ibrahima Seck moo dérangé wax saalum yëpp topp bu mu de di gane si cheikhul islam Hadj Ibrahim bisu aljuma fu mu romb ñu takk saret maa ñu war la ñuy topp ngan boobu keroog protocole bi par force la maanaam ni mu em ni ko gisee ngay def keroog pour nit ñi añ kër yi dañoo fees ba bàyyi bi ci boppam dafa fees bàyyi leen lépp sëriñ bi xam ngeen nu mu def pour nit ñi añ dafa teel a yónnee ne ñu dem leen Kaolack moo leen ñuy passion ci Kaolack képp ku ngeen fi fekk mu teg mbana ne leen ko ñaata fay ko mu teg ko ci watiir boole ay bóoleem ak tungaaram yow yekkee si ko benn keroog képp ku sëfoor maa ngay apprenti maa nga daan añee li nga xam ne lii mooy restaurant keroog boo ñëw mbiri na bàyyi doo añ ndax sëriñ bi jënd na añ ñëpp restaurant yëpp jënd na ko fuñ fekk juróomi nit taaj ñu taaj mbana taaj bóoli teg ngeen ci keroog nii lañ añee maa ngi fàttaliku bu baax bañ julee jumaa ba pare góor gi taxaw daal wax wax joo xam ne lim fasaaya ni ko sëriñ bi ba may jógee sama kër di la seet si dama amoon feebar ci sama xol ba ma séqee benn jëkko mu commencé féex bi ma tegee sama tànk mbir na la sama xol wér bàyyi jógal taxaw ku la gis dem aljanna ku la gis du lakk loolu xalifa bu canaba bàyyi defar na def ko ngan ci sama kanam maa ngi toog yemu ca mu ñi yebal ay doomam ebal Serigne Dame Seck mooy porte parole canaba actuellement ba ma ko mujjee xam mu ñëw nekk ci école bàyyi dina ci jàng ba bàyyi may ko bourse digal na ziir mu may ko bourse ak rakab bu ñuy wax xalifa euh, Seck ñooñu fekk ñu Égypte yàlla dimbale ma boobu maa ngi liggéey ci rajo Linguère amee naa ko ñaar fukki at ak ñeent la voix de l'Afrique section wolof ñoom ñaar ñëpp dugg nañ ci rajo ba liggéey kon relation boobu bu la te foofu xalifa bi toog cana ba tey di Cheikh Tidiane am na rakam boo xam ne keroog nett nañu loo xam ne bi ñuy jaaree délégation buy jàll bu maa ngi fees teel ca la ko nettalee moo tax moom ko nettalee fii nii fii ma koy waxee ndax nee na maam ñun man ak kalifa bi def nañ 40 ans Kaolack bés ma ne damay julli ci jumaa mel na bàyyi mooy ki topp ci kalifa bi de xam nga ko kenn ko sosol dañ lay dégg mu ne ma bi ma ñëwee toog ci jumaa ji bi bàyyi na tël ak yére yi ñu sol sama kawari bopp bi dafa taxaw ndax siira li ma ci jàng keroog Seydina Ali ibn Abi Talib laa jël mu ne ma keroog laa bëgg keroog laa bëgg a julli ci jumaa ndax aw ma sikki ne su ma génn delloo te damay bañ ca ba ñàkkam <laughs> yaa ngi dégg kon boobu diggante bu xóot la nag laayeen nga xam ne luñ leen di dégg bu baax moo tax Ibou Diouf yàlla nañu ko yàlla fayal parce que moo ñu gindi archive bi ci moom la jógee ñaari kilifa wax nañ ma ne bi bàyyi bàyyi ba ñu jumaay jumaay laayeen ca Cambérène ba ñu koy ubbi bàyyi moo ko jiite waaye la ca ubbi Juuf waxoon fàtte nañ ko ñëpp ne nañ bàyyi ubbi na ko te Ibnu ci waaye euh, dañuy négliger lu garaaw poète booyam ni Ibnu Juuf nga xam ne keroog bi mu génnee àdduna lan la bàyyi wax ne seen mbokk mi nga xam ne moom la xaatif daan waxee dilu na kay loolu ko bàyyi tàggee seen mbokk mi xaatif daan waxee dilu na kay ndax njëkk bàyyi di génn àdduna ca hôpitalu Saint Thomas hôpital bi loolu tudd ñu bëri naan hôpital loolu Saint Thomas la tudd ca Londres fa la bàyyi génne àdduna gars indi seen polaroid ray ray ray ray bi pare lépp lakk benn fi ñu génn Ibou Diouf ba mu ak bi bàyyi di gaañu mot na cinquante ans presque wala quarante ndax daf ne atam jumo di jiw ca fàkkee daanu Angleterre alors noonu yëpp da koo London moo di jumo daf doon jihaat tubaab bi ni fekk bopp bi yóbbu bopp bi Louvre ma nga fa. man su ma doon autorité dinaa ko laaj yaram nga ñu ko tuur suñu toolu buur ci kaw la fa lañ tabax li nga xam ne mooy euh, kër bu bees Ibou Diouf lu mu wax loolu rek dafay day ci laaye daf ne Cheikh Suyooki Ñas Cheikh Suyooki Ñas da ngan gàtt Cheikh Issa Laay Cambérène te lay na kéemaan Sidi Ba ba Issa bindee leetar ba yónnee ko Barham juma ji ñu doon liggéey pare na Sidi Barham esaan ko naan yow de laa xóolu yaa koy yaa koy daloo baay esaan ko naan yow de laa xóolu yaa koy daloo baay yaay suñ ji ci ay liggéey la ci ay suñ ji cëmmaraw la ala Sidi Ba esaan laay esaan laay mu ma esaan laay may ibnu limaamu laay ma nga naan pareel waaj Esa laay may ibnu imaamu laay ma nga naan pareel waaj jumaa ji ñes yaa koy jiite si ginnaaw leetar bi nga xam ne moom la sëñ Esa laay bi noonu bàyyi ne jumaa ji pare na te yaa koy jiite yaay doon ilimaan bi yaay bu jumaa yi laayeen leetar boobu moom la ibu juf kon loolu amul benn relation boo xam ne gën na ko dëgër ci diggante ay kilifa xalifa bu samp jumaam ba pare nga oo beneen xalifa mu taxaw jiite ko loolu wax dëgg yàlla ak xalifa bu samp jo jàkk ci marché oo beneen xalifa mu ñëw daroo ko comme ni sëñ Abdou euh, Fallou defoon loolu yaakaar naa mu ñëw nag ci relation mu gi nga xam ne mooy kër Cheikh na Ahmed Tidiane ci Sénégal bu ñuy lim kër diine yi bu ñu cosaan lañ ndax surtout Cheikh na Ahmed Tidiane direct muy Cheikh Mouhamadul Habib moo nekk Dakar kii Cheikh Ibrahim Niass am problème boo xam ne mi ngi ci famille Cheikh na Ahmed Tidiane mu bugg koo parce que moo doon Cheikh na Ahmed Tidiane te mboolem Tidiane àdduna bi nangul ko ndax kalifa ba ca Faas moo ko wax ne ko kooku ko amoon leetaram fi ne da ngay dënd moo bind bàyyi ne ko gis naa Cheikh na Ahmed Tidiane muy jaaru yow yaay per ba nga xam ne moo nekk ca jaaru booba nga amoon jaaru per bu fukk est ce que booy dem kaw doon yaay per ba ca kaw jaaru ba te ñi nga xam ne ñoo lay diir mbagg dinaa wax seen i mbagg uuti sama xaama ñoom ñëpp seen mbagg danañ fàq ñu daanu te kenn du la jot parce que li tax mu ko daf ko gis ndax deuxième guerre mondiale dafa war a tàkk Cheikh Ibrahim mi nga xam ne mooy kutb kutb buy dafa kutb boo ko tudd kutb ordinaire daal yooyu yëpp ay kutb la kilifa yu bëri ci muqaddama bi ay aqtaab lañ wa iddahisal aqtaabu kutb yi buñ gërëmee ki leen di dindi ko benn affaire la passé na kutb muy gis deuxième guerre mondiale safara si di jóge ko asamaan di soppeeku ci kaw jaami yàlla yi waaye xam li mu représenté ci kaw suuf koo tax nga moom yi jox leen ay ahzab ak ay ñaan ñuy faral ci jumaa pour def contre attaque ndax koo xam ne sa mission mooy jël xeetu yoon ci yàlla Muhammad yóbbu leen ci xadratul kursi yaa ngi sa borom a ci jàkk ak jamono loolu mission mu gis asamaan si war a sotti deuxième guerre mondiale safara si war a sotteeku ci kaw jaam yi mu yónnee ay dog maa ngi def contre attaque bu tëddaatee gis ko. mu ne reen lu mu jam-jam reenoon ko féetee suuf taxawal ma ñëw dem faas te Cheikh Maama Tidiane def tawassul may jàmm yàlla musal jaam yi ci xay bi keroog ba mu waajee fekk boobu mbooleem gànnaar gannaaw bu xaaj Abdoulaye wulul xaaj gisee fayda Tijaaniya gis ko mu leer naññi gis ne bàyyi mooy boroom mu nangul ko ko gànnaar yëpp nangul ko ko dagg ñëw keroog bi xalifa bi demee gànnaar keroog suma xel daj na la Cerno Xasan Dem waxoon Xaaj Abdoulaye Niass alxalifa dafa teg tànkam ci Barayna fële xalifa fële Cheikh fële wir naasiril xaq bil xaq fële njëkk a duggee Afrique dëkk boobu wala Cheikh moom dafa am suñu dugal ko ñu mu ne ma keroog ngàmmu naay gi ñu tegal alxaaj Abdoulaye taawoo Cheikh Islam Xaaj Ibrahim moo leen sëti yonent yi ak sëti Cheikh Mahamad Tidiane alxaaj Abdoulaye toog ci gànnaay ñoom ñëpp ñu toog ci suuf di bës tànkam yi ne asamaan si ak suuf si keroog bu ko yàlla bindee ba léegi ngi soo gis lii tey dëkk xam ne muy baray na ci digg gànnaar nit ku ñuul ku fa teg tànk xeew nañ la jaay la tey la fi nit ku ñuul teg tànk ci sang moo leen sang yëpp di jàpp kooku nag moom la gànnaar yëpp nangul ne moom mooy borom mooy mooy borom fayda te bañ dajee fekk bu ko si ku ñëw dana la ci sa loxo ommat la ba ne yaa ngi sa borom a ngi ci jàkk ak janoo ci lu doo benn ku wedd laaj laajal laajal laajal lu kooku nag bi mu amee kalifa gaa nga faas xabaar yi àgg ci moom fiiraa ngi jib muy bind leetar bi wax lu mel ni xëy kenn ñemoo koo jàng di wane ne yëf yi mënta nekk te foofa la jàpp ne yi di faas la du faas la bàyyi waxoon waa asar bañ dajee màkk mu jóg di tagg buur bi bàyyi jóg tagg yàlla tagg yonent bi soo ko gërëm buur bi ñu invité mu ne ko may ma ma rectifié xanaa yow nga jàngee mun ko déedéet sa baay mun ko déedéet mun mun ko déet mun jaawale léegi bi ñëw ba asar moo ba ak Sénégal naar bi nekk fa di sikki ci ni waa gànnaar di wax xëy fa ca Fass di ci sikki keroog bi bàyyi jëlee décision la dafay dem Fass ñaan Cheikh Ahmed Tidiane ñaan fa yàlla pour yàlla arrêté ay yu muy gis ci deuxième guerre mondiale wala sotteeku ci kaw jaamu yàlla yi bés ci décision boobu ci la xeex na Ahmed Tidiane fëggee supérieur yi ca Fass léegi mu xam ngir yi mu de ñaari général ñu jël kenn yónni kenn kaste dara jox ko la ko yëgal ki ñu la yónni di ne pëkk pëkk supérieur yi mu naa ne ko waxal ma bàyyi ne waxal Cheikh Ibrahim ne ñëw fii de ñaan yàlla mu arrêté deuxième guerre mondiale du mission mission mooy mbóot moomu ma xenu di ngay bay mbóot moomu ma xenu te kenn du ko xenu ku may moom na toog nandale ko loolu mooy mission mais arrêté deuxième guerre mondiale bi ñu mission dogalab yàlla la moo koy natoo jaam yi kenn mënu ci dara bu mu jóg bu mu dérange eh eh mooy amee mbóot bi jeex na bi góor gi daw di ko guddi daal di taloo ci kooku ak Cheikh Mahamad Tidiane caali ne ko yow mi nga xam ne yaay joxe mbir yi mu ne ko Cheikh Ibrahim fa nekk ak nam soree jox ko loo mos jox kenn benn wala mos koo gént mosal ma ak ko naan mosal ba jox ma bokkul joxe nañ ba a fi des rek ajël xuduumaka yaa aba isxaaqi yaa sirri bi taaqi fa sirru lan yaxmilhu gayruka fi huna faqi hunaalika wasqihi yaa saak ne ko na fa mu dëgg daal di ci xamu Cheikh Ahmed Tidiane Diagne Thialit ne ko naa la min ka aboo isxaqa manzilatan fii yakzatin lam yanalhaa feen fi naw yaa saaqiyal yaa saaqiyal qawmi xaj naa la min ka aboo ba mu jeex ne tey yow mi amee la jox këréelu kenn mës a gént mais moo sax moom kooku laay wax relation ak famille Cheikh Ahmed Tidiane ci biir Sénégal marhaban ahlan sahlan marhaban foofu laay tëjee parce que cinq heures lañ joxoon rajo su demee ba six heures sañ nañu commencé comme fi fekk lu fi fekk baax na marhaban yàlla daf ma wan ñu wax ma ne nit doon na am ay tabam dem phase tabbu ci sphère opiniane am li lim bëgg waaye mu ne bés ni ki tey xanaa dem siyaare ji jëmm ji waaye lépp loo bëgg ci fekk tijaan te demoo Medina doo ko am billaahi wal kitaab yow yaa naar gànnaar bi bokkul ngeen wax naar bi dafa wax ne dafa melal ba yeddaani ne bàyyi baax te rafet boo ko séenee ak kaala ak a baax te rafet bu solee mu bëgg lu rafet yee jëm ci jumaa ci ak a baax te rafet buy firi alquran buy melal yonent bi buy mayee buy joxe bu ci gën a rafet xaw ma ko ñu ne ko yow li ngay wax zaahir la baatin mu ne waxtu woo ne ci biir Medina Baay rek boo gëñee ne yaa ngi mel ci yonent su la nekkee tañ sa te waxtu wi ki ma doon wax ne tël te amul benn sikki léppam taar la mas nay gàmmo di wax yonent bi nii la mel naa la mel kanam bi éni nim sëttee ka sàkkul yàlla wa bopp bi dafa tijji di wax benn bële ni taxaw di ko xool xool ba mu yàgg mën a kon jël ko mu ñàkk fay góor gi mi ngi wax mi ngi bàkku di wax ci boppam di bàkku di wax ci boppam di toog di koolee rek man ko yow yaa gàmmo gàmmo gi ko yow gàmmo nga gàmmo gi tey woo waa ji daf ne wala xabada cheikhul xalilu isadana وإذا نأى وإذا نهى وإذا أمر وإذا مشى تلك الهوينة أو بدا من بيته وإذا تبسم أو نظر ولحبذا تلك العمامة والثياب البيض والنور الذي كشف القمر لو أبصر الرهبان طلعة وجهه حسنا لقالوا فيه ما هذا بشر يعني قد بعتن بمنا وترى المدينة في المدينة قد بدت وترى النبي إذا الخليل بها ظهر nga ne ko lu ko ko may mu ne la fa cheikhu cheikh min shuuni muhammadin fi kun hi rutbatihi takattama wastatar walahu ala kulli lwujudi siyadatun walahu lubudatu maratibi ar kon ñu tëjee ci Cheikh Ahmed Tidiane famille ci Sénégal Cheikh Mouhamadul Habib ñu am problème bu indi ba Cheikh Ahmed Tidiane génnee àdduna ba bi bàyyi di jëlee doomam bu jigéen bi ko may sëriñ boobu benn sax Cheikh Ahmed Tidiane moo ko la corporate bàyyi dana ko rek moo tax mu may ko doom que ci juddoo Medina Baye lañ ko ngénte kàngami tijaan yëpp a ñëw Cerno Cerno Cheikh Sëñ Nuuru Taal moo tax li ca nopp yem baayam Modou Habib sëtu Cheikh Ahmed Tidiane ko tuddee ko sa bopp Cheikh Omar moomu tey di sëtu Baye di sëtu Cheikh Ahmed Tidiane mooy kilifa Cheikh Ahmed Tidiane ci Afrique yëpp ku nangu ñaan la nag man mas na jox dix mille francs ma ne ko Serigne maa war a jox addiya mu ma affaire la ne ah mu ne ma boo amatee xaalis leen ko ci di seet balaa sànku ñaata la xaw ma deux cent mille moo ca demee wala trois cent waaye bëri na lool ku nangu ñaan bàyyi nag keroog bi ko mayee soxnaam Seyda Umu Xayri moo nekk Niger tey di yaay président yaak premier ministre yi borom projet yi ak daara yépp ñu may ko Cheikh Moussa Cheikh Cooto dégg mu am ci alxayru ma nga woon ndaw euh, suusu keroog bi nga xamee wala e, chérif boobu doomi Cheikh Mahamad Tidiane ak doomi baay bàyyi ne na bi maamam génnee àdduna ba léegi benn sët Cheikh Mahamad Tidiane moo ko alquran kookoo xam Cheikh Mahamad Tidiane moo ko topp te ba mu ko waxee kenn ñemoo koo weddi ci sët yi ndax ku ko wax mu ne la kay tëj keroog bi doom xale boobu tëree alquran mu ne lii la nga xam ne gàppe la bu dagg bu nekkoon ci fam Cheikh Mahamad Tidiane ci Mouhamadul Habib mii nekk Sénégal mu may ko suma doom ba mu am ci doom ci laa ko daggee sëñ Cheikh Ahmed Tidiane mokkal na alquran kenn dootu wax ne moom fi jógee ba léegi benn doomam benn sëtam wala boog benn sëtam mokkalul alquran wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala لا